jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV bëggee na leen bu baax a baax gannaaw ba ñu jógee drapeau du chef de l'État trois jours yëpp stade ma Manel Fall foo sànni mbatto mu tak tey jii mel ni tamit stade Ely Manel Fall foo sànni mbatto tak na mu mel ni Jurbel dëkku lamb la Jurbel dañoo bëgg lamb du dund lamb lamb nekk ci seen deret yaakaaroon naa ne tey stade bi du fees du bëri nit mais tey yaakaar naa foo sànni mbatto mu tak grand combat baa ngi noonu diggante Bébé Ama bu gannaaw raay moo féetee seen loxo ndeyjoor ak Ama Balde bu Touba Ndiarème moo féetee seen loxo càmmoñ muy ñaari Ama di drapeau Serigne Omar Diouf borom léppay baax Serigne Omar Diouf borom Mourtani Serigne Omar Diouf borom Maroc yéen a ngi bëre drapeau ku am jom yéen a ngi bëre drapeau ku nangu mbokki mbokkam ayca Ama Baldé bu Touba Ndiarème na cokaas na waaw combat bi mën naa bañ a yàgg waaw ndax ñoom ñaar ñëpp dañuy bëree sañ-sañ Ama Baldé Touba Ndiarème ak Ama Baldé gannaaw raay maa ko wax ñaari ama gannaaw ama bu gannaaw raay moo dent bopp bi mooy njool mi attention ama daw na jël na ko jël na ko jël na ko laa ilaaha illallaah hey ama daan na ko ma daan na ko oh Bébé Ama daan na ko Ama Ama Baldé bu Touba Njaareem jommi na waxoon naa la ko sañ-sañ bi bokkul sañ-sañ la ko jaay jël tànk bi daw ak moom rek jël ko mu dëpp daan ko jël bu rëy oh la la la la la la la oh Ama Baldé ngay xatraayu Ama kenn mas a gis lii la ilaha illallah oh. dawal ba pare mbër. ayca ñi nga ak euh, bébé Ama bu gannaaw raay bëri combat bi coow sa diggante ak Ama Baldé bu Touba Ndiarème ma laaj ko sànq mu ne ma day tëj sa gémmiñ mais gis nañ ni mu mujjee. maa ngi sant maa ngi sant sama sama mbokk di sant seen confiance bi nga xam na mu yëg maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. yow walaay kàllaam. mais ñoo ci li nga bëri ba da ngaa sànq. mënu ma morom mooy. am dafa am dafa dafa soxla dëkk yi. ñaareel ñaareel man booy yëpp maa nekk maa maa leen maa nekk. ah yow xam nga li nga wax kan moo am itam. sama bopp yaa yàlla nga ko xool waaye waaye li ma la bëgg a wax maa ngi sant ñëpp daal maa ngi sant ñëpp daal. li ma bëri bay bëri wax mi bay bay su su jigoon fi dem Gàmbi fii ba Kaaraan saako tàngal bilaa walaay arrêté mu demoon tàngal dégg nga ma ne bu jigoon fi dem dem Basi ba Kaolack arrêté bu wàcc ma tàngal. ne woon nga ma dinaa ko defal bu ne maa ku ne ci ñoo ko mën a def naa ko defal mu ne naa ko defal mu ne kuruj. waaw bu kuruj laa ko wax kuruj. ma ne la xam ne demandé pour pour acheter. waaw xam ne demandé pour pour acheter. na maîtriser kontaan ko des. saa yi bu leen tàmbali loolu. Mbaye Mbaye Mbaye drapeau Omar Mbaye Mbaye drapeau Omar Mbaye drapeau Omar drapeau Omar. Omar de koñ ma drapeau Omar Mbaye. Sëñ Omar Diouf bi nax bi nax xaadim sa jox ma bu ñu ma soroon man bu yàgg suñu ma sant ñëpp. waaw soo gaa yi jiitu daal ma bi yaa bi. ku muy laaj ku muy laaj. maa ngi ñëw maa ngi sant ñëpp ku muy laaj. léegi nag léegi nag kan moo nekk si kanam man nga soxla. man instant bi tool bi ma jaar ma soxla. ak ko fenn non non non sama xew. sama xew kër moo la xewal. ah ma def nii. daal ko yaa la ma daal ko yaa ma daal di laa mel nii. ah si booy ma tënk ñu jóge ci drapeau sa kër daal trois jours. papa. te sant di fees tey nga ñëw fees la. donc si am nga gars yi ñoo ñu bëre te bàyyi daw la xool bi comme kan ñu ñëpp man du ma laajte dépassé naa du ma tudd tudd. mais mbër su xamee adversaire am ngay nekk wutal combat. kon da ngay kon da ngaa bës du ma laaj kenn lamb xam na ni ma wax ko rek dama jël lu bëri yoo xam nga ne instant bii dama bëri spécial. romb romb nga spécial ñaata drapeau la war. amaa bi du ma mën a wax. yaa nee na bongo ma la man jël laa bongo ma la. loolu la la damay taw damay bongo damay dëgg sama naan càcc Merci beaucoup. Merci.